tay motax donc gannaaw bi ñu ko defee daaw donc ren tamit voilà euh, euh, ñi ñi am bac duñ ko laaj ak élèves bi ak parents d'élèves aussi tamit ñu gis ne voilà élèves yi bu ñu amee ba pare après dañuy dem ni rek duñ comprendre lu bari dañuy dem def ay erreurs surtout sur choix ñu def pour pour voilà euh, étude yi ñuy def après université ou bien daal formation professionnelle motax ñun Matsa ñu ko xoolaat ne kat yoon lañu ñu defaat benn édition motax té ñu ñëw organiser voilà deuxième journée nga xamné moy orientation ak intégration bu nouveau bachelier booy xam ne euh, bu leen di xaar si université bu leen di xaar si inscription campusienne bu leen di xaar si formation professionnelle mais tamit euh, euh, possibilité de concours yi ñu am war ko saisir. Tëngéej depuis 2014 amul amical étudiant actuellement mais yenn université ñu ngi am mais Dakar ci boppam Dakar amul amical té lolu bu amé xam nga ne problème day am lu amé parce que actuellement nii. même sax budul Covid bi amna ñoo xamné ne seen parents amul moyen ko di leen jox chaque jour 1500 francs pour ñuy passe aller retour